subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim wa baad mbokk yi ginnaaw buñ santee borom bi subhanahu wa taala ñu julli ci suñu sang bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan borom moom mi nga xamante moom mooy borom jàmm mu defaral ñu jàmm incha allah ñu koy santaat ginnaaw bu ñu mayee wér ak jot ba ñu daal di toogaat ci plateau bi ñuy fàttalante lenn ci suñuy diine ndax borom bi moom moo ko wax fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin mu ne na ngeen di fàttalante ndaxte fàttali dafay ñëriñ waaye ñu gëm kon ginnaaw loolu tey ci tem bu ñu naroo dugg rekk mooy fadlu la mooy ngeneelu tudd yàlla tudd yàlla importance bi nga xamante ne am na ko kon tey suñu fàttee fàttali ci loolu lay wax ñu xam ne tudd borom bi subhanahu wa am njëriñ la doomu aadama bi ñu xam ne tudd borom bi subhanahu wa taala ñun jullit ñi dañ kaa war a tàmmal suñuy làmmiñ ndax yàlla mi ngi naan ci alquran wala zikrullahi akbar mu ne tudd yàlla de moo gën a màgg tudd yàlla moo gën a sell kon ñu xam ne tudd yàlla dafa baax waaye dafa am li nga xamante ne mooy njëriñ mu delluwaat waxaat ci alquran fadkuruni azkurukum mu ne tudd leen ma man yàlla ma daal leen di tudd kon borom bi subhaanahu wa taala ku mu tudd rekk jàppal ne ni yow am nga sakina am nga dal fii si dund aduna kon nañuy ñuy tàmmal suñu làmmiñ li nga xamante ne mooy tudd borom bi subhaanahu wa taala ndax dina la aar ci lu bari waaye dina la jàppale tamit ci lu bari boo xoolee yonent yàlla yunus yàlla lan la wax ci alquran falawla annahu kaana min almusabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yubaasuun mu ne yunus moom bu nekkul woon di sabbal tur tur turu yàlla mu ne kon dina daal di des ci jën bi ba keroog biñ koy dekkil kon ñu xamante ne yunus alayhi salaam moom lan moo ko muccal ci jën bi tudd yàlla bi nga xamante ne mu ngi ko doon tudd sàbbal yàlla bi nga xamante ne mi ngi ko doon def kon ñu xam ne tudd yàlla am na njëriñ buñ nee tuddal yàlla rek nekkuñu danga koy tudd ci zéro mais di am di ci gis ay résultat yu bari moo tax abi hurayra mi ñuy nee ci xadiisam mu ne ab nit du dañ di tudd yàlla lu dul ni yàlla dafay wax malaayka yi ñu daal di koy wër malaayka yi buñ ko wëree ba pare wa xasiyatuhumu rahma yàlla mu daal di koy mu daal leen di muuroo li nga xamante ne moom mooy yërmandew wa nazalat alayhimu sakiina waaye mu daal di wàccee foofu li nga xamante ne loolu mooy dal ndax malaaka yërmande buñ la wëree yàlla mu daal lay muuroo ak yërmandewam waaye fi nga nekk mu daal di fay wàccee li nga xamante ne mooy dal ndax loolu warul dal dalal xelu doomu aadama réponse bi mooy axankay kon ñuy tàmbal suñu làmmiñ li nga xamante ne mooy tudd yàlla fépp fu ñu nekk ñu daal koy ñu daal koy tudd muy bërëbu liggéeyukaay muy fu ñuy toggee muy fu ñuy toogee di def jotaay ni ñuy tàmbal suñu làmmiñ li nga xamante ne mooy tudd borom bi subhanahu wa taala mais mal asaf tey waxu caaxaan la jël di ko foowee lépp lu ñu ti wax rekk ñu ngi siy jël waxu caaxaan di koy dugal ana tudd ana tudd borom bi subhaanahu wa taala moom yàlla mi ne ni faskuruni askurkum mu ne na ngeen ma tudd man yàlla ma daal leen di tudd kon nañuy bàyyi xel loolu incha allah ñu daal di tàmmal suñu làmmiñ li nga xamante ne mooy tudd borom bi subhanahu wa taala boo xoolee tudd borom bi subhanahu wa taala am na ay ngeneel yoo xamante ne mi ngi si bokk na si ngeneel bi ak zikru yamnawu sheytaan min duxulil bayt nee nañ tudd yàlla de dafay tax seytaane du dugg sa kër ak seytaane yàqute bi nga xamante ne da koy def boo nekkee di tudd borom bi subhanahu wa taala loolu dafay tax seytaane du mën a dugg li nga xamante ne mooy sa kër ba tey ci xadiis jaabir radiallahu anhu jaabir da moo ñuy nettali mu ne dégg naa ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne nit ki de bu duggee ci këram mu daal tudd li nga xamante ne mooy borom bi subhaanahu wa mu daadi di tudd tamit yàlla si heure jamono bi nga xamante ne mi ngi lekk mu ne qaala sheytaan dangay daal di dégg sheytaane mu ne laa mabita lakum wala acha mu ne njabootam yi tey de amoo leen fi ngeen di fanaan waaye amoo leen tamit fi ngeen di reere lan moo waral loolu parce que tudd yàlla bi nga xamante ne def nga ko loolu dafay daal di yàqal li nga xamante ne mooy sheytaan mu ne waaye tamit nit ki de bu duggee ci biir këram bi muy dugg tudduwul yàlla waaye bu muy lekk tamit tudduwul yàlla nga daal dégg seytaan muy ne njabootam yi tey de am nañ fu ñuy fanaan waaye am nañ tamit fu ñuy reere kon boo xoolee beneen bi tudd nga yàlla tax ne seytaane moom ak njabootam yi amuñu fu ñu jëm amuñu fu ñu lekk bii tuddoo fa yàlla tax nga seytaane moom am na fu muy fanaan am na fu muy lekk kon ñu xam ne ni tudd borom bi subhanahu wa taala am na njëriñ am na importance bu rëy bi nga xamante ne moo ngi ci bokk na ba tey si ngeneelu zikrullah nee nañ ak zikru yajaalul abdu min maiyatillah ñu ne tudd yàlla day tax jaam bi mu ànd ak yàlla day tax yàlla tamit mu ànd ak li nga xamante ne mooy jaamam te yàlla daal ku mu àndal rekk xamal ne ni am nga sakina fi dunia ak alaaxira ci xadiis abi hurayra radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi yàlla wax na ni kon lii xadiisul xudsi la xadiis wax bi ci borom bi subhaanahu wa taala la jóge yonent bi sallallahu alayhi wa mu ñu koy nettali mu ne yàlla dafa ne ana inda zanni abdi mu ne man maa ngi ci sama njortu jaam kon moo tax nit ki fépp foo mënti nekk rek amal njort bu rafet ndax lépp loo njort yàlla mi ngi ànd ak yow ci njort boobu mu ne wa ana maahu ida zakarani te man maa ngi ànd moom saay bu ma tuddee moom borom bi subhanahu wa ngi ànd ak jaamam boobu saay bu ko tuddee fa in zakarani fi nafsihi zakartahu fi nafsi mu ne saay bu ma tuddee ci boppam man yàlla ma daal di koy tudd ci sama bopp wa in zakarani fi mala in zakartahu fi mala in xayrun minhu mu waaye saay su ma tuddee ci mbooloo mu ne man borom bi subhaanahu wa taala dinaa ko tudd ci mbooloo bi nga xamante ne moo gën moom mbooloo kon nañ xam ne tudd yàlla macha allah lu am solo la comme dañuy wax saxaaba yi ñu ne ñoom dañoo tàmmaloon seen bopp tudd yàlla dañoo tàmmaloon seen làmmiñ tudd yàlla ba suñ doon dugg ci toilette yi sax nee nañ dañuy wut dara dugal ko seen gémmiñ ndax ñu bañu a juum tudd yàlla ci douche kon ñooñu ñooy royukaay ñi ñu tudd yàlla ñooñu ñoo ko xam kon ñu tam war nañ tàmbal suñu bopp li nga xamante ne mooy tudd borom bi subhanahu wa ba tey abi hurayra moom moo ñuy nettali mu ne yente bi sallallahu alayhi wa sallam nee qaala allahu taala mu ne yàlla wax ne ana ma abdi xaysu ma zakarani wa taxarrakta bi shafata mu ne man de maa ngi ànd ak sama jaam fiyop moom mi ngi yëngal Euh, ay làmmiñam di ma tudd saay bu nga xamante ne rek làmmiñam mi ngi yëngatu si tudd ma rek mu ne man yàlla maa ngi ànd ak sama jàmm boobu ba tey bokk na si ngeneelu zikrullah ak zikru xayrum min asadaqa wal jihad mu ne tudd borom bi subhanahu wa taala moom moo gën saraxe waaye moom moo gën li nga xamante ne mooy jihad buñ xoolee ak jihaad yiw bu mu